revue bi ginnaaw naaja gi buñ leen nuyoo bu baax a baax sant leen gërëm leen ànd bi am na solo yàlla na jëm këram sàkku ci yow mii di door a ñëw nga def sab abonné yow mi ko def ba pare maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm maximum de partage ci li nga xam ni moo nekk sunuy vidéo sponsor bu mag bi mi ngi Taïba Taïba yi ngeen gaaw dugg fa rajaxe ko dem lijjanti seen seeni bagage ñëwaat ni coow nag taxaw ci yëglekaay yu am solo yi gars yi ni ñu leen di toppalee maanaam seen chantier ñun Taïba Taïba yi ba chantier bi ngeen jot seen i caabi ñu ngi ci période nag maanaam monté lamp yi moo tax daanaka ma présenté leen ci suñ sawrine bi nga xam ne moo nekk marché central bu Thiès Taïba Taïba yi ne fa sawrine boobee nag tey lamp yi nga xam ni moom mujj a génn ci dernière génération yi nga xam ni adduna wala ngal kàpp boo ko doon coytu doo fa gis lamp yu gën a jaar yoon gën a originalité te it ñu jënd ko ci njëg goo xam ni lan leen ko mën a jaayee dana mucc ayib ngeen for dara te du am benn jafe-jafe nag tey ji moom laa leen façon lamp bu dul bu jinne am na ci seen i place la leen koy may nag mooy ngeen def seen i commande yow mi ne Thiès mën ngaa gaaw def euh, sa commande yow mi fa nekkul mën ngaa dàbban ñi bu baax a baax xool uh, fi nga mën a jaar ci téléphone yi ba mën a jot ci say bagage ñu jaay ko njëggu yomb lépp nag tawféex lay doon fii ci Taïba Taïba yi numéro téléphone yaa ngoog Moussa ak ñim àndal Ousseynou ak Assane ñoom ñëpp am nañ xol bu sedd ak péexte goo xam ni uh, dalal clients yi bu ko defee bu ñuy jot seen i caabi ñu mën koo jot ci barke uh, ndax liggéey bu mucc ay bi nga xam ni gone yi ñu ngi koy am ci suñ sawrun bii gannaaw yëgle bu am solo boobee ñu commencé ko yëglekaay ak li nga xam ni moo nekk record yëglekaay bu Youssouma Jigéen Ndour moom li mu rëkk ci taabal ji bokk na ci Jackson mi nga xam ni moo war a défier Haaland maanaam ci gàttal Manchester euh, City ak équipe bi la bi di Manchester ak équipe bii di Chelsea bu Nicolas Jackson Jackson ñoom ñaar ñoo war a dajee dakkante bi loole tamit nekk match boo xam ne bu ñëpp di xaar ci Angleterre ndax soog bu mag bi ah, ponkalub maami soog bi foofee ci Angleterre la Jackson yow moom lan la ciy ñaanal jàmm nga am te victoire boo xam ni ah, bu sedd guy la Papito Pape Matar Sarr moom it daanaka ñëw na ci xëtu njëkk li nga xam ne mooy ne stade yëglekaay nga xam ne daanaka kët woowee lu ma andi mooy Jackson mi nar a daje ak ki nga xam ne daanaka ah, moo nekk Manchester City loolee nekk ah, lu ama am solo la waaye Pépito Pape Matar Sarr it moom it war naa am match boo xam ni ah, bu ama am solo la gone kees gi am na yeneen yu ñu war ci moom nag mais loolee daanaka secret la xam na danañ ko andi ci yeneen jamono yoo xam ne du bokk ak revue de presse bi ndax c'est spécial c'est spécial ñu dem ci yëglikaay bii nga xam ne daanaka moo nekk réew mi wala sunu people sport people ak li xam ne daanaka moo jëm ci sport bi nga xam ni daanaka gone yi dañuy gundaandaat moom it ñëw na ci équipe nationale ah, bi nga xam ne fi mu toll ni daanaka cadre équipe nationale bi am na ci ñoo xam ne seen i dem dematul Lion bi nga xam ne mooy Lion Sénégal tamit ah, di beach soccer ju dërbeelu démb ci match bu amoon am solo seen digganteeg ak Bélarussie loolee Tribune Sport ñëw na ci xët wu yaatu yaatu waroon nañoo am ndam nag ndax loole di football boobu di footballu beeñ mën nañ ko lool xanaa ñu ñaanal ci yeneen match yi nga xam ne dese nan ko ñu mën cee am ndam yu yaatu jërë ngeen jëf